Découvrez le bouquet africain.tv, la première application 100% légale de chaînes et de contenu africain. Accédez à 5 chaînes sénégalaises et à 5 chaînes de divertissement. TFM, RTS, Soulieuf, A+, Nollywood TV, Trace Africa et beaucoup d'autres. Tous les hommes sont pareils. Tu voulais détourner de l'argent là dans mon salon Retrouvez également plus d'Afrique et ses centaines de programmes à voir et à revoir en illimité sur tous vos écrans. Divertissement, films, séries, jeunesse. Testez-nous avec le bouquet africain.tv. Mettez l'Afrique sur tous vos écrans. alaikum, Sénégal sénégalais yi monotol leen rek ci globe bi ni koy waxé moy aduna yépp Khadim Gueye fekk na fa nga tok, ziaré la sargal la njukkal la la jox la sa wàccuwaay di la sant ci seetaan bi di la gërëm ci bi di nuyu fa la ci bi yépp voilà ñu bare nuyu naa leen maa ngi rappelé waa Dubaay ñoom ñu ma bind ne naa leen nuyu nuyu naa leen ñi nekk ca Corse mooy Corsica maa ngi leen di nuyu ñenn ca Madagascar ñenn ca Cap Vert ñenn ca Congo Brazzaville ñoom ñëpp jot naa seen message Mauritanie yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu euh, Abu Dhabi les pays arabes la gars yi jot naa message yi ngeen ma yónnee yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp pour jaar ci tur yi ak sant yi day metti mais seen message jot naa ko di leen sant di leen gërëm donc euh, leen remercier aussi euh, euh, ci yëg bi parce que yëg dafa am solo ngeen toog di bind kenn ku ne di mu wax fan nga mooy bindee loolu rek déjà danañu gën a encouragé voilà bu ñu jógee ci loolu leen rappelé nag ñàkk yi ah ak mesure barrière yeeg masque bi bu leen ko fàtte ndax coronavirus mi ngi lëmbe ba tey mi ngi wàcc alhamdulilah activités yi commencé nañ ñi ko di ko reprendre fu nekk ci àdduna bi donc il faut ngeen dem tamit ngeen góorgóorlu ci loolu ah te ñàkk yooyu vraiment mooy li nga xam ne si moo ñu ko war a éliminer wala mu yóbbu ñu ba nga xam daañ mën a dund ak ak feebar boobu ni ñuy dundee ak yeneen feebar yi nga xam ne si bu la dalee nga dem faju rek del siwaat donc jàppale leen seen bopp jàppale seen i mbokk jàppale seenu dëkkuwaay ak adduna bi ngeen jàpp leen ngeen dem ñàkku ji te bañ a déglu ñiy wax dof ñu leen di wax man mii maa ngi ñàkku naa bu yàgg ni mu leen koy waxee ñaari ñàkk yëpp yor naa sama green pass léegi Europe bi ñu nekk c'est obligatoire man fii may liggéey à partir du quinze de ce mois ci bu ma amul ñaari vaccin yooyu du ma mën a liggéey dañuy suspendre sama liggéey mën naa toog duñ ma dàq mais duñ ma fay donc kooku lañ appliqué fii daañ ko mës a appliqué ba ci Sénégal goo ngeen nekk ak fu ngeen ne ci àdduna bala ñu la ñuy fekk nag na fekk yow nga def ko def ko sa wér gi yaram personnel buñ jógee ci loolu remercier ki nga xam ne si mooy le bouquin africain dégg gis ngeen euh, message publicitaire boobu nga xam ne jàll na ci commencement bande annonce boobu leen won chaîne yi nga xam ne si yëpp ñu ngi leen koy offrir ak prix bu baax voilà di ko dawal fépp ci Afrique nga ba mu non fii ci astafurlah fépp ci euh, Europe ba mu des France parce que France ñu ngi koy négocier mais yeneen pays yi nekk ci Europe yépp mun nañ am abonnement boobu dañuy dem ñu télécharger rek ngay def li nga xam mooy application boobu di ko mën a am ci euh, Google Play Play Store Apple Store boo demee nga télécharger ko am application bi xam nga. am abonnement bi bu fekkee ne benn weer bëgg 4 euros nga 6 mois ñu jox 12 euros au lieu ngay am fay 24 euros genn wàll ngay fay un an ñu laaj la 20 euros donc 20 euros yi am nga 7 mois yoo gratuitement nga am di am chaîne yooyu TFM da nga gis Sen TV da nga gis ak euh, africain voilà am ci ben chaîne bu am solo aussi bu fa nek muy sunu Yeuf, sunu exclusivement 24 sur 24 ay série leen dawal ak théâtre yi nga xam mooy nekk Sénégal pour yéen jigéen ñi suivre euh, li nga xam mooy série yi ak euh, ñoom sànneex ak gaa yooyu waa théâtre bi lépp mu foofu di leen ci booleel aussi li nga xam ne si mooy dessin animé yi ñuy defal suñu xale yi pour xale yi nga xam juddoo nañ fii euh, nekk fii ci Europe bi xamuñu seen culture dessin animé yooyu li leen di jàngal mooy seen luy Lat Joor luy ay Soundiata Keita ak ñi nga xam ne si mooy suñu maam yooyu nga xam ne si am nañ histoire ñoom ñoo def histoire Afrique donc euh, nous ngeen euh, télécharger les euh, li nga xam application bi très simple le bouquin boko taper rek Google le bouquin africain.tv après di nga parole par parole nga koy suivre nga fay sa abonnement ñoom daañ la may sax 15 jours yoo xam ne de preuve la boo ko fayee ba pare di nga seetaan émission yépp bu la neexul ci 15 jours yooyu mën nañ la delloowaat sa abonnement boobu donc def naa lu gën a yomb loolu amut te arrangé jigéen yu bare ok ku ci xamul noo koy defee aussi boo ma yónnee message wala affaire naa la expliqué nu mu gën a demee donc di leen remercier ñoom tamit ci jàppale bi nga xam ñu ngi koy jàppale Khadim Gueye TV voilà ñu dellusiwaat nag tey ci. mbirum Sénégal ak yàqkatu der yi nekk Sénégal yi ngeen di gis ñu mel ne tey ki ma bëgg a wax mooy Ousmane Tounkara xam nga gëj ngeen dégg ma wax ci usman Tounkara dama ko bàyyi woon ba mu génnee kaso ba tey déggu leen ma wax ci moom dara mais nag nee naa la quand c'est trop c'est trop génn na bëgg na am buzz di wut buzz def woon na ne moom bu génnee kaso dañ koy woo ci télé yeeg. sit ye ken ku ne di ko woo yaakaaroon na bu génn dafay nekk euh, euh, ku Sénégal yépp di wër yàlla def ba mu génne kenn faalewul maamam yëguñu ko ma nga ca laay ba mu del na ci otoom ba toogaat ak kafem di nan di commencé waat di sosal ay dit gis ngeen bërki dem ci màggal ga ma nga sol ay yére wolofam yu nice ñëw dem ca màggal ga gis nga toroxal gañ ko fa toroxal bu jom la am am rasu comme ni ma koy waxee ah depuis ce jour là dana soppeeku mais waji ji soppeekul gis ngeen ko fan yi muy attaquer kan lay attaquer tange tandian tange euh diko nuyu de passage gëj nañ dégg non asafura gëj ñu déggante sax mu ngi noonu voilà ma ngi koy nuyu vraiment gis liñ ko def mu nakari mo parce que dafa metti quoi ñom dañoo iñaan à tel point que buñu gisé nit ki euh, mo leen gëna siiw rek il faut ñu ñëw diko sosal ban bëgg ma nga wax ci nit mais diko waxal lo xam bul nekk di sosal doomu aadama voilà gis ngeen li mu wax ci Tange fan yi Tange tontu non parce que Tange dafa sonn Tange jiiñ nañ ko fi ay or bu mu sàcc jiiñ nañ ko fi góor jigéen di n'importe quoi ñu teg ko fan nikki ki ne pat nit ki nag bu nee pat tontuwu la bul nekk baadoo la ah bu ko continuer di insister di insister di ko sosal quoi wala nga nekk ba am luy dëgg ci moom nga ñëw nga teg ko nit ñi gis mais Ousmane Tounkara ba ngeen ko gisee muy toog ci otom boobu ngandum sikkim ba léegi lu ne dañ la am na dossier bi dina ko teg fi mës ngeen a gis benn dossier bu fi Ousmane Sonko teg non Ousmane Tounkara asafurlaa bu mu teg ah wala Ousmane Ba fenkat boobu hmm? mais genre nit yoo xam ne ah dañuy ñëw di menace sax ni gis naa am Ousmane Ba di menacer Massaly Bergame naan ko 18 heures na nga dindi plainte bi nga defal fële booy bi mu ngi tudd lan booy bi def naa Ousmane lan Ousmane Diagne ah na nga ko dindi noon naa génne say bagage dara yoroo ko génnewoo tus si moom te naa leen xamal sénégalais yéen ñi gisoon histoire boobu ah Ousmane boobu police lañ ko yóbbu lu mujj di jooy di sarxu di jégglu waa ji te baadoo benn ca Canada mi ngi fa toog naan day menacé mooy dox boo xam ne boo nekkoon Abdou Ndiaye mais Abdou Ndiaye mi def ne mu la noo Abdou Ndiaye sama gaañ la xam naa ko da ngay inventé lu la neex tur bu la neex waa ji xam na ko fréquenté na ko def na tout bañ naa ko defal naa ko fii gis ngeen vidéo yi mu ko defaloon mook tunkara hmm? mooy euh, la Champions League des mythomanes fenkat yi gën a dàq fen ci àdduna amul lenn lu ñu lay wax lu dëkk loo wax ñu ne xam nañ ko koo wax ñu ne xam nañ ko ku nañ yor na sa dossier ku ŋaan ñu ne sa dossier ngi ni naa ko teg yow Ousmane Ba ban sagaru dossier nga mën a yor yow ci ki nga xam ne si mu masali yow bu ngeen di jaay crack masalee leen gën a dof voilà kooku taal seen maam lay def te li ci gën a soof mooy dañuy ne ca États-Unis wala ñu ne ca France di rigi lamiñ di wax benn tàppet kenn ñemewu ci ñoom ñiy dem Sénégal gi di am lu mu fay wax léegi bala muy gudd ñu dem ci Tunkara voilà am lu ma leen dëgtal ci live bi mu si def te live bi dama bëgg ngeen déglu ko ak attention di wax aji sar na ko déglu avocat aji sar na ko déglu parce que lii tunkara di wax fii bis bu ci génnee xam nga li diffamation lañ koy wooye mooy li nga xam ne si masali mi moom la porté woon plainte Ousmane ne ca police ba di di jooy di wut ay intervention bañ koy sarxu pour mu retirer plainte bi Ousmane Tounkara nag ma nga ca États-Unis bee ak sikki moom mu ngant waaw dégg naa temps bërki dem naa ko xaw ma malien nga la da ñëw fee ñu jox la citizen stange Ousmane Tounkara du citizen kàcc ci la fi def ne citoyen américain la kayitu sukkar yoru ko Amérique moo tax ñu tëjoon maamam ci kaso bee gouvernement Sénégal porté wuñ ko plainte tey porté wuñ ko plainte suba ndax affaire terrorisme wax leen ma lan moo ci yoonu immigration Amérique c'est une loi de am nu muy immigration c'est yoon ci terrorisme donc si l'État Sénégal n'a ko porté une plainte ah du immigration moom mooy gérer affaire boobu Ousmane Tunkara, fii la fen ne yor na passeport américain et tout c'est du citizen de tant yaa ngi koy may gëdd walking permit la yoroon mu jeex de kooku à l'air. leer Ousmane Tunkara, yorul passeport américain loolu rek waroon na ko suul bañ ko découvrir la waroon a génn bu doon gàcce am na ko danoon bàyyi réseaux sociaux yi du fi taxawati mais mu toog fee di ñàkk jom lu ne mu koy wax dégg naa fan yi ñu koy naan dañ koy défendre ci Tange lu ko Tange wax mais est-ce que dégg ngeen Ousmane Tounkara lu mu tag Macky Sall mais Ousmane Tounkara toog na fii saaga ndey président Macky Sall saaga fi ndey ku ne ay Youssou Ndour fenal fi ay Youssou Ndour sosal fi ay gor yoo xam ne si ñoo gën maamam gën génération hmm? Tange wax ko li ngeen naan naan Tange mere parce que Ousmane Tounkara war a tudd ay waajur Ousmane Tounkara waajuru jàmbur yi ñuy tudd leen saaga fan ngeen leen mën a teg dañoo gën maam yi waaye yow dafa nga ne président Macky Sall dalli Macky Sall dafa mën a mbët génération wu maam yi Ousmane kon nag yéen yi koy defaan dañ koy wax ne ah waay waajuru jàmbur boo bañee tudd sa waajur bul tudd waajuru jàmbur voilà. Ousmane Tounkara fii la toog tegal naa leen ko fii muy xotteel xottel ndayu Macky Sall bàyyu Macky Sall def na ko ci Youssou Ndour def ko ci ñoo xam ñoo gën maami maamam kon nag kii baadool la Tange dañu ko sonal mu gën répondre ko waaw parce que lu mu wax mooy dëgg bu mu wax ci Ousmane Sonko ku ñëw taxaw ñu bu ñuy wone ne ñoom ñooy défendre Ousmane Sonko lan ma ko Tange wax Tange dafa tudd Ousmane Sonko Ousmane Tounkara wala lenn mais Tange amul droit di journaliste am ay information seen fen yi mu ñëw teg lan mooy dëgg ba ah Ousmane Tounkara mooy ndayu kan ba moom mooy tontu Ousmane Sonko tontuwul portewul plainte Tange bu fekkee la Tange wax du dëgg na ko Ousmane Sonko porte plainte mais maam neeg sikki moom mooy toog ci otoom ah naan moom mooy répondre la ki nga xam ne si mooy Ousmane Sonko. kenn du fi laal Ousmane Sonko da ngeen ko dégg fi sax mu ne ay booy yoo xam ne ku laal Ousmane Sonko lañuy ñuy bañ Ousmane Sonko mooy kan Ousmane Sonko bu néewuloon dafa bëgg nekk président kan moo faale maamam ba ñëw toog naan dañuy wax ci moom boo bëggee yor suñu réew ma daañu la critiquer yow baadoolu beeg sa ngandum sikkim foofu ngay toog xas di saaga président Macky Sall mi nga xam ne il est déjà président tekkiwul dara Sénégal Ousmane Sonko lan la mës a tekki Sénégal. donc fen yi mu fen Adji Sarr maa ngi la koy ñaan di ko ñaan Maître El Hadji Diouf na ngeen déglu bu baax Ousmane Tounkara na Ousmane Sonko nekk président sax bu fa nekkee bis bu ñëwee na ngeen ko cité yóbbu ko tribunal par diffamation na ngeen dégg li muy wax mook sëriñam boobu mu leen tegaloon semaine bee da ngeen dégg sëriñ bi aussi naa ko ci tegal waxal leen ndax sëriñ dëggantaan noonu la war a doxalee nekk ca Touba Mbacke Gueye waxul ci sëriñ Touba waxul ci dara lu hmm, ay affaire u kàcc ay sos yoo xam ne dégg nañ fi fab Alé Niang dégg nañ fi capitaine Touré lu ne génn na fi ah, ay bàjjanoo Adji Sarr ak ay nijaayu Adji Sarr di n'importe quoi mais ñaar ñi ñooy doogu fël nag ñoom ñaar kenn ka la génnee Ousmane Tounkara ñëw gon nag xoolal man kenn du kàcc ba dàq maa ci donc il faut ma dolli ci ñu ànd dégloondoo bagage bi ok affaire soxna soosu nga xam ne dafa nekk Adji Sarr Euh, li tax nag ma bëgg cee wax tey pour ma bëgg koo leeral mooy fan yëpp gis ngeen li ndaw yi si ndaw yi jooytu Macky Sall mi ngi tukki dem fu ne ci àdduna bi ak avion présidentiel ak xaalisu senegal ak lémpowu senegal président Ousmane Sonko mi ñëpp sopp mm-hmm. bëgg sax di ko jëndal billet avant tout Macky Sall c'est le président de la république avion bobo, avion bi Ousmane Sonko mais Yalla bu ko nekk te ñu Yalla mu ñuy jité Sénégal bu togon fee Macky Sall tok. avion bobo ci lay voyager dem di lu tax ñu fal ko président lamuy doxé lool la Macky Sall doon doxé. président boy woy wooye ko Macky Sall Sonko du président dara moo yow yam citoyen sénégalais bu tekkiwul dara la comme yow mi tok di def di jëf di wax bëgg nek président mu aspirer aspiré comme yow mi mbam Mingodon, mi nga wala man mii ñu aspiré donc ay président Sonko du tous président de la République c'est avion bobu c'est l'avion de la République du Sénégal président le tax ñu fal ko moo ñuy doxal loo xam du yow mii du Ousmane Sonko mais moo koy dox ñu dem xaalisu bopp pour mu man tukki nemmeeku doomu sénégalais Makistal jël na passeport C'est jàpp ay banditisme là. man dinaa leen wax dara tey Ousmane Sonko bañ koy wut ci kër nday nday xadi dañ ko bëggoon jàpp en flagrant délit ci yéen ñi xamul luy flagrant délit mooy Ousmane Sonko bu tegoon aji saar baaraam sax ak wee sax di ko wokk dañ koy am ci caméra sur parce que lenn am na am nañu ñoom

affaire bi dama koy jàll ci benn site laa ko jëlee nii donc euh, la publicité moom il faut ngeen euh, di ko ci am ah, patience di ci déglu léeg-léeg muy jàll mais en attendant publicité bi di dem foofu ah da ngeen di jàpp que ne ah moom nee na Ousmane Sonko ñoom ñoo koy fayal ay billets je ne pas quoi xam nga affaire yu demee noonu donc euh, ok lu normal la. Macky Sall avion be nekkul avion boobu dañ koy jox benn Sonko mu ciy dem di seeti ay sénégal je ne sais pas surtout baadoolo yu mel ni yow ñu leen seet si ko bu ko bëggee day fay maamu biem wala ngeen fayal ko ko moom. Sonko lam yor kër yam dëkk yoroo ko yow mii baadoolo bi ndax terrain sax amoo ko Sénégal yoroo fa barak yoroo fa sax sakket Sonko ma nga fa ak air plus kaatam yor ay kaat kaatam yoro tout bu dee ñàkk ngeen fayal ba di ko jëlal bii bu muy leen di seetse kooku seen problème la mais avion bee bu nekkul président du ca yéeg kooku dafa war a clair ok ñëw na neen la euh, dañ ko waroon bëgg a jàpp comme flagrant délit fële ca li nga xam ne si mu ngi leen di expliquer sax la mooy flagrant délit quoi voilà donc nee def nañ fi seen ay caméra def nañ fi yoo xam ne dara amu ca voilà ñëpp parce que da ngeen yi passé woon soxluñu si dellu si yéen ñëpp gis ngeen ko seetaan ngeen ko xam ngeen ne neewoon nañ surtout Babacar Touré moom neewoon na caméra yi fonctionné wu ne dara kii ñëw ne monté donc am nañu film yi kooku wuute na ñoom ci seen biir ñoom ñi jàppale Sonko sax amuñu sax accord parce que dañoo waroon waxtaan mën a concorder seen fen yi mu nekk benn déglu leen fii Tunkara ak yi def li mu fii nag laa bëggee aji Sarr déglu bu baax maître El Hadji Diouf déglu parce que ci dénonce plainte ndax diffamation dafa war a ñëw Tunkara na ñëw ndaayam mu expliquer mu jox leen preuve ci li muy wax mook sëriñam bi naa leen tegal sëriñ bi après nañ dem exemplaire dans une société voilà ñu ay nit yu baax passé na ci salon bo xamna lepp ñom bi ñu complot doomu adama ñak na ci a mhm. waxuma la sax 14 sénégalais yi ñu rek yi ray ndax mortal combat am voilà wax ko bi ñu def ba mu perte ba mu dé sax xamna ci hôpital amaana moom bakkanam du ci xet da ciy xet te ba muy yegg hôpital ba ba muy yegg hôpital ci biir ambulance ba sax Adji Sarr woo na ko appel vidéo ci biir ambulance bi ndax tiitaange bi Adji déglu leen ma fenni nit ki nee na ndaw si dafa ëmboon ñaari seex aji Sarr moo rey daanaka li muy wax ni mooy benn doom ba ca biir ba dina leen ko nettali supp boo xam ne aji saar moom la ko xadi njaay yónnee woon mu jënd ko ba mu ko lekkee meew mu jëkkër jëndi woon ca la benn doom bi ci la avorté sur la coup ñu jël ko ci ambulance bi dugal ko ci xam nga ku nekk ci diggante dund ak dee aji saar mën a jël téléphone di ko def vidéo appel ki nga xam mi ngi ci dund ak dee yow sa bëñ bi bu doon metti rek wala sa baram bi tal nga leen lu dul ñuy def ay video appel legi nak mom ma nga won ci digënde dundu ak dé tunkara néna aji sar wonako ci bir ambulance bi ah ndey xat yi wuyu ko appel ne sax pas appel normal mais video appel deglu leen ma gaay sen dimension katchi yi ñuy kàcc pour défendre benn kat quoi voilà ñu dem ndax masiba naaru lay bi mu def ci mewu bridalu ndey xat yi bi nekkon ci bir frigo donc ñu bari am na loo xam ne xamuñu ko jëmale ko ci affaire Ndeye Khady. moom moo ko xam na nga foo waaye naa ay kaddu Cheikh Baar. oui Cheikh Cheikh Baar am na yu bari yu mu ci wax ba ci Amadou Sa. ñu dagg ko tuuti Cheikh Baar lay wax man Baar li ma ci xamoon yow mii may xool defe naa Baar mooy fa ñuy jaaye kafe ga boo wàccee fii am na Baar bu nekk fii sama suuf kër beneen Baar ma nga fay Cheikh Baar ñii dañuy déggante di échangente ay ay information boo waxee dégg sax nu muy waxee tur bi nga xam ne xamante wuñ ko mais que kàcc na ay kàcceem jox na ko ko moom dégg leen nu mu koy interpréter après naa leen teg xam nga roy du ndoor dama leen tegal Khadim Gueye lu muy def document la koy def tegal leen ngeen dégg Tunkara bu pare naa leen tegal Cheikh Baar moom xam nga Cheikh Baar kan kan moo xam Baar Baara Njaay lay wax bu wal fajiri mooy ki ma leen tegal semaine bee espèce su sëriñ boobu le charlatan la voilà charlatan boobu naan ko tegal lii moom moo nekk li tunkara lii tunkara nag xam bëgg na ko interpréter comme information bu ñu ko jox xam nga ah tax maîtriser wu ko mu koy net li bu danaa la tegal nag piir ba après balaa vidéo bi jeex déglu leen bu xam kan mooy baar baara njaay la bëgg wax quoi baar la koy wooye mais baar ne ko na ñëw jaay ñu café quoi voilà mu président de la république dem na ci salon massage boobu mayee fa ay trois cent mille francs pour boire jappelen lo 300000 deglu len ma de doomu Macky Sall Amadou Sall doomu président de la république dem na ci salon Ndeye xadi di fa joxe ay 300000 francs diko jox ay doomu na ngeen japp 300000 yoyu nga xol ñaar yi kan mo ci gëna a mitoman kan mo ci dàq katchi yi par exemple dina len jox original ba li ma wax roy rek pur boy fen gis ko la dakh fen da ngay gaare liko ko Ndar wàññi ko wàññi ko ah gay yi len ko bar ya tukara wàññi len ko quoi japp len 300 millions après di ngeen dégg bar lan lay wax ci 300 xama ki nga la doomu Macky Sall Ousmane Tunkara bañ bu mu Macky Sall jaral nako day dem il faut mu jël ci fami Macky Sall ken dougal ko pour gënal len leen gën len mëna manipuler hein ah. mu tek ci tour bi bar mom waxul kan moko indi 300 millions di da ngeen ko dégg après. prêter leen ci attention dégg leen Tunkara mu kon ne nee na Amadou Sall doomu Macky Sall moo doon fréquenté foofu ñëw ba corrompre ñuy fay trois cent mille mënu ko sax expliquer dégg leen baar nañ leen ko expliquer après voilà. doomu Macky Sall waxuma sax beneen nit yóbbantewul salon boobu même moom daf dem. waxuma da ñu jox preuve bi de bu ma amadou sall billahi di nga ñew senegal tek preuve yi sinon ci kaso bi ngay dé grave dans ce cas de ndey xam loolu yëpp hmm. bëgg na koo indi bëgg naa ko indi yorul gat yoru ko dara dama leen di indil ki nga xam ne moom mooy vidéo cheikh bar cheikh cheikh baara xala dafa def benn vidéo bu am solo hmm. boo xam ne doomu aadama yi àdduna bi yëpp fi mu ne nii dégg na mi ngi noonu ne ko mi ne ne ko mi ngi noonu léegi nee na ci Cheikh Baara <laughs> Cheikh Baara ci lay basé wu mooy vidéo bu mu leen war a tegal parce que bii da leen ko tegal xëy na du leer man après lu leen koy tegal sa waay ca Touba mu toog ci dëkk bu tedd ba dëkku Cheikh Ahmadou Bamba amul lu muy wax waxuñu see xasaay bi waxuñu dara loolu di fa sosal Adji Sarr di fa sosal ki nga xam ne si mooy euh, état bu Sénégal quoi voilà. te di ñaan yàlla boobu nañ ko déglu maître El Hadj Diouf Adji Sarr na dégg lan la mbaam mii di Ousmane Tunkara wax baar moomu muy baar moom la koy wooye muy baara dolli man du sama sëriñ du sama tus kooku koy wooyee sëriñ sax man weddi naa la charlatan laa koy wooye maa ko waxoon démb je le répète aujourd'hui voilà parce que sëriñ am na lu ñuy xaar ci moom lu dul lii di sos voilà dinaa leen tegal original ba après nee la roy dunduroog piir voilà léegi nag hmm? ñu ñëwaat déglu leen fii. ma indi leen vidéo boobu. déglu leen fii ci màggalu Touba baar bi quoi ci bi am tax na ba vidéo bi amul buzz te nit ñu bari dégguñu. donc moo ma leen di indilaat vidéo bi. dégg nga lu mu wax nee na Touba dafa am buzz gannaaw looloo tax Cheikh Baara wu Baara Baar. sëriñ monsieur Baar sax laa koy wooye ah li mu doon wax amul bës ndax màggale gi moo am bës donc moom buy wut bës day dem ba ca màggal pour wax fa waxuñu sëriñ Touba ci bisu sëriñ Bamba ba waxuñu dara loolu affaire Adji Sarr ay sos la fay ëddil dégg leen Baar bi nga xam ne moom mooy mooy moom mooy mooy inspiré Tunkara moo koy jox information yi Baar moo yor dëgg gi voilà dégg leen Baar li mu wax mosu leen dee dégg. Pape Alé Niang lu muy mën a kàcci kàcci bu su suñu ko ci dégg mu wax loolu tante yeeg bàjjen yi yëpp inventé na ko fonctionné wul ki nga xam moo doon def capitaine Touré déggu leen fi mu wax lii yëpp Khady Ndiaye nga xam ma dafa kàcci ba périmé amoon fukki tur ak juróom bu ñu fukki tur ak ñaar ñuy doog a génn benn ba xam ne Khady Ndiaye la tudd mosu leen dégg mu wax lu mel nii. baar nag ndeysaan ah xam naa day tëdd bu guddi jinne yi ñoo koy yee ndax sëriñ la ah moom ñoo koy wax ne ko lii moo doon scénario bi da ngeen dégg nan leen ko tegale mel na moo fa nekkoon moom ak tunkar quoi ñoom ñoo nekkoon ci biir loo xam ne ñay def enquête ya ña nga xam ñooy dëkk ci kër ga muy Ndey Xadi Njaay ci boppam hmm, ak euh, ñoom ñoom euh, Aji Sarr ak yeneen masseuse ya ah, kenn xamu ci woon loolu Bar moko ko xam moko ko indi moko tek ba pare diko wat nak diko wat ci dëkku serigne touba bu tedd be ya ñak jom ba xawma nga tudd man de la woy serigne sax yak dar la quoi wa kum neex baax na kum nak ya xam kum nek sëb serigne nang ko def man de ki doyuma tus wa ngeen xam li nga xam ne moom la yëkkati wax ko ci vidéo bobu ba pare ñu topp tànku vidéo bi li nga xam ne wax na ko ci yépp ñu indi ci ay leral

parce que bu fa son ko ñëw tek fa responsable du salon bi. Mm-hmm. fa am du am. dafa am. ñoo mm-hmm. dugal aji sar ba noppi jëlee fa nday xat bi fa nday xat yi jógee demal nga laaj ndey xat yi ñaata massage la fa bay ñaata massage ñaata massage massage lañuy wax ñaata massage. man na am mm-hmm. massage yi. ki mm-hmm. ñu bëgg mu maase ko pour mu comploter moom du ko maase ñu fay leen bu ne trois cent mille. ay pour déboucher leen. loolu révélation la. dëgg laa la wax. révélation la Ndiaye du ko weddi ñëpp kenn du ko weddi dañoo doon fay booy man ki leen bëgg. maître El Hadj Diouf. ah Cheikh li Cheikh li wax nii. diffamation. bi ngay dem bi ngay feebar di dem ci hôpital ba. waaw yàlla naa sas nga fi bàyyi ak bi soo koy ñor ñett la fekk. dañoo ne ñëpp bàyyi leen. Mm-hmm. dañ ne dañ dañ leen a fay pour ñu abandonné. li leen kaay. déboucher leen. trois cent mille ñu fii police bi fii bëgg a ñëw. police day ñëw bi ñu ñëwee fekk da leen di dama lay dimbali jëlal lii nga dem seen dëkk nga jël yoo xam nga ne ku ñu war a soog na fi seen waaw ci yëpp bàyyi révélation la ci beneen parti ci complot bi du kenn musul dégg café bi moy hmm. boole ko bis bu nekk di ñëw ñëw ndax ñëwagut mi ngi ñëw ndax ñëwagut ñoom ñuy gaara seeni oto di xaar ba xam dana ñëw bu ñëw xolal lañ fa daj ci ay jour man gis nga daara yi isbu tarxe daaru xudóos bi ngay gis mm-hmm. maa ngi ma dëkk ñi ngi seen kër ngi nii seen jàng yi moom la doon laaj ñu ngi ndax dalu dérange mm-hmm. seen seef ba nekk kër euh, Dakar mm-hmm. mook suñu buta ñoo taxal seen siège ba nekk siège la ñuy wax nga naan siège ñoo taxaloo man ñenn ci ñoom am na lu ñu xam ci lu bari ci mbir moom dañ faa toog a toog ba maxe ba ne waa ji ñëw bis nga bis ba ñëw ca la Sonko ñëw. ñeneen ñi doon toog di xaar. ba leen rëcc. pour dàq maasas kan yëpp ba ne léegi moom bu jot comme Sonko moom heure yi guddi bu jot nañ fi monté di ko nekk. non jour bi ñu monté wut. bi ñu ñëwut. jour boobu la yàlla yàkkam ci yàlla. lii sëriñ la kii. Mm-hmm. billaahi wallaahi. billaahi waat na ci yàlla. Mm-hmm. astafurlah taxaw. Mm-hmm. gaare kat kat mënta fee dof mënta fee kee mënta fee kee. Mm-hmm. dégg nga. ko ndey xat. laaj ko ndey xat. ñu nekk fa ko wax te ndey mm-hmm. la ko mën a aborder ba am ci moom rek dara. préparé ko. moom am na ci ku doon wax naan ko wowoon sama bureau pour. waaw amoon na amoon na amoon na. buñ koy violé buñ hmm. ko fii 15 jours dañ koy violé ba mu koy ba après naa leen ko montel ci vidéo mu leer ngeen dégg ko bu baax lii leerul ci yéen nii dinaa leen ko tegal baar. borom café gi fi ñuy jënd café ah loo xam ne Cheikh wax na ko fi te doomu sénégalais yi war ngeen cee bàyyi xel bu baax a baax a di ko bàyyi xel di la bàyyi xel yow mi seen kàcc yu mag yi yéen du ngeen ruus sax yàlla yàkkamti na leen euh. yàlla yàlla dimbali leen quoi pour ñu mën a leen seen bàkkaar yi kaaw Ousmane Sonko ci salon Ndeye Khady dëgg il a fallu ñu débarrasser wu de Ndeye yi mhm. te pour débarrasser wu de Ndeye yi déglu leen fii il fal fallu ñu xool naka lañ ko mën a defee ci jigéen bu biir mhm. Eh, ci ay kaddu source siri. Doris tonnellate sono è presente il pancale. nekk mi ngi eh, noonu Tunkara ñum ñëwé nonu. Ah, néna il faut ñu débarrassé pour mën monter sen complot bobu. ñu débarrassé ndaw Légui problème bi ce n'est plus ñuy compléter Ousmane Sonko di éliminer Ousmane Sonko mais fi ci sen wax ñom dañu wara éliminer ki nga xamné ne moy borom salon bi moy Ndeye Khady voilà Mom kërëm léegi doyatu leen ñu créer fa complot mais dañ ko war a éliminer moom complètement pour mën a jël Adji sar imposer ko nit ñi est sa xam nga pour mën a taxawal complot bi quoi lii moom mooy thèse bi nga xam ne si ah, moom la Ousmane Tounkara war a dolli parce que Baar moom nee naa leen li mu doon wax noonu leerul parce que moom moo leen ko tegal man dama leen koy tegal original bi ngeen dégg ko monteel leen ko ngeen dégg lan la wax ngeen toog nag seen diggante ak seen axulaay taala ngeen toog fu ngeen nekk ci àdduna ngeen déglu ne ma kii ndax sëriñ la ak lii ba mu koy waxee ci màggalu Touba waaw bisu sëriñ Touba waxuñu ci xasaay bi nga waroon ko dékk microphone ku ñëw di ko wax ay affaire Adji ak affaire politique mu waroon na la xool loolu andiwuñu fii ne Ousmane Sonko sax bañ koy wax ci për daf ne lii andiwuñu fii mais baaram yi moom moo toog di fa nekk li di kàcci laa la wax wax lu amul tey amul suba loo xam ne ña ngi direct intéressé yi dégg ngeen ci version bu nekk mais mosu fee fi dégg lii baare wax te dinaa leen ko tegal après ngeen jugeel seen bopp nag ngeen attel seen bopp ndax doy leen ab sëriñ ndax kii àdduna ak bëgg jàppale benn njaalookat war na jar ku dem bay wooye sa sëriñ am ñuy topp sa ginnaaw am ñu la yaakaar am ñu la gëm am ñu la respecté ah. bis bu ñu la manqué de respect rek xamal la sa jëfin la ak sa waxin ndax am na sëriñ soo xam ne si vrai sëriñ la doo leen dégg ñuy wax yu mel nii quoi voilà man lii moo ko dégguloon sama noppi bopp duma ko gëm wax na leen fii ne la pisam bi amoon problème orange Macky Sall la ko doon euh, manipuler ñoo ko def complot. te gis nga Touba fan yi lan lañ doon kaas moom mi ma nga foon orange doxu fa woon ba ñëpp ñi màggali woon yor orange ñu ngi doon kaas xam nga kooku problème technique la donc u Macky Sall dafa comploté ñëpp ñi xam ne si ndeysaan ñoom ñoo nekkoon ca fële ca Touba xam nga yor orange quoi dégg ngeen ñu dégluwaat fii Tunkara tuuti après ñu. jox jëndali ko supp voilà. Aji Sarr indi supp xaw ma ñu lu mu def ci supp nag damay wax rek. nee na xarit moo yónni Aji Sarr mu jënd supp jëndaloon na ko butéelu bridal jëkkër ji meewu Bridal. meeru Bridal marque ba sax dafa ko tegal quoi Tunkara. Tunkara quoi dama lay tàcc quoi gën mooy ba mu naanee ci meewu Bridal bi. Mhm. teg ci biir frigo bi. jëkkër jee ko jënd naanaat ci meewu boobu keroog la takkale koog sax. jëkkër jee jëndi meew mi. aji moom moo jënd woon supp bi. biñ ko takkalee diffamation bi aji saar plainte la day dafa naan meewu Bridal bi rek biir bi attaqué ko. mu avorté si saa si doom. ci saa si. parce que ñaari seex yu ëmb. pour muy leer. Hmm. pour ñu bari ñu déggul explication bi. Hmm. ndey ñaari doom la ëmboon muy ay seex. way benn bi daf ko ñàkk si saas. meew mi nag moo rey benn bi ak supp bi quoi beneen bi moom dund na quoi te ñaari seex ñooy nekk. en hmm. diggante. meew bridal bi. ak li nga xam ne mooy supp. bi nga xam ne la Adji Sarr. way pour jox ko ko. si entre ñaar yoyu waaw moom daal naan na affaire bi attaquer na. bi ben dom bi gaawuloon yegg hôpital amana man na tay ñàkk ba. way ndax ba ba muy dugg ci ambulance bi di dem. si. ci yoonu hôpital bi. waaw. ku ko woo daf ko wo appel vidéo. appel vidéo mi ci dund diggante dund ak dee. circonstances yi mu nekk. si. pour xool. ndax vraiment fi mu toll ni man nañoo attaque après son ñëw. non. imagine imagine borom salon mi ngi ci diggante dund ak dee. Mhm. dans les normes ci ay situation ay circonstances yu normales. oui ah, ah non. xoolal boobu moom foofu laa koy yemale. dégg ngeen ko seen noppi bopp nee a Ndeye Khady Ndiaye mi ngi ci du diggante dund ak dee alors nous récapitulons. <laughs> ok. aji sar nday xal yon nako mu jënal ko soup neena mom xamul lu aji sar def ci soup ba ah mu yonni jëkkeer ji mu jënal ko mew bu wax ne marque mew ba mu ko répéter hmm mu andi ko ñu def ko ci frigo bi nday xadi naan ci soup bi naan ci mew mi ok ci saasi nday xadi dafa ëmbon ñaari doom cheikh ay cheikh xam nga ni koku yeen a koy dogu dégg révélation exclusive la bu leen jox ndax moom moo fa nekkoon soppaliku weñ mook baar mee ko wax yooyu yenn bagage ya ah, ñoom ñu ñëwandoo ndeysaan fekke loo xam ne ndey xat yéegu ko xamu ko jëkkëram xamu ko aji saar xamu kenn xamu ko mais ñoom ñoo ko xam voilà wala jinney baar ñoom ñoo ko wax loolu moom mu ñëw jox ko tunkar tunkar ñëw jot ko man noonu laa ko mën a gisee ok nee na ci si la avorté ñaari seex bu dee mbuus mi ñaari doom yi ñu ngi ci biir xanaa bu dee ñaar yëppay dee bu dee dañu dañ koo posone lu tax kenn ki mën a rëcc buñ koy jur keneen ki dee ci tàng-tàng tunkara nee na ci instant bi la avorté est que loolu ndey Xadi ñi mosu ko wax li muy kàcc mën a kàcc lépp ndax Pape Alé mos ko wax kenn mos na ko wax ndax ñii mën nañoo xam loo xam ñooñu xamuñu ko kooku question lu ma leen di poser ngeen war ko poser seen bopp yéen ñi ngeen jox seen bopp réponse pour wax la dimension ah ñii ay mi seen mythomane yi ñu doon fan la mën a toll quoi ban level la àgg voilà te nee na dañ ko buñ ko gaawul yóbbu hôpital mën na am bakkanam des ci moo ko wax de ngeen dégg te nee na biñ ko jëlee ambulance bi dugal ko ci mu nekk diggante dund ak dee Adji Sarr def na ko fa ndeysaan vidéo appel ah nday xadi nanga nga def yaa ngi fii ah way yow yaa ngi nii mais lan moo la tel mbaa nangam nangam ku ne ci diggante dund ak dee tal na yor téléphone bu ñu koy jël vidéo appel tunkara noo gis nga bu ñu doon joxe Oscar ci fenkat kat ci hmm? naa ne yow li ma doon wax Ousmane Ba Ousmane Ba defoon naa mooy le meilleur mais ane deux mille vingt et moom jël naa coupe bi ñu gaynde ah ma teg ko ci say loxo quoi Ousmane Tunkara ba pare. Ousmane Tunkar mais yow da nga xol yalla ci li ngay wax Maître El Diouf vidéo amul mu nal ko jox buñ ko effacer télécharger naa ko mun ko jox li diffamation la na ñew ndaye mu expliquer mu joxe les preuves de lim mu wax ni mo baram me voilà bala muy gëna a gudd nag duma len sax continuer li ci dess parce que ay kàccee bi la nek di répéter mais li ci apone essentiel bi moy nouveauté bob mu len andil ci affaire Adji Sarr lepp pour sauver Ousmane Sonko Ousmane Sonko du lii moo ko ciy génne ay complot loolu leen baar di wax ak teg nañ fa ñii ñuy garde matin soir ak kër gee moo newoon ca wet gaag yooyu yëpp amul lan moo tax Ousmane Sonko dem fa lu tax mu dem fa bu fa demuloon est-ce que li yëpp dana am ba ñuy garder garder sax def na ay dof baar da ngeen ko dégg après dañ teg benn dof fu nekk moom moo fa newoon quoi moom moo doon corne moo ko ay jinneem ko est-ce xam nga lu ma la wax voilà waa ji ñëw nag. ñu nettali ko affaire rek moom mu ñëw dolli ci xam nga supp bi ak meew mi ak vidéo appel yi nga xam ne man vidéo appel bee mu ci gën a neex quoi man j'imagine nit ak métitam koo xam mi ngi si diggante dund ak dee mu ngi koy woo téléphone am muy def vidéo appel deful sax appel normal quoi mais Tunkara yow booy amoo moroom gaynde de doo yow non vraiment ah Oscar bi moom teg naa ko sa loxo voilà léegi nag li mu bëgg mooy tegal leen li nga xam ne si mooy original bi parce que kii kat ci kat la boo xam ne tekkiwul dara yàgg na fee sosal ay nit ay Youssou Ndour ay ay Macky Sall lu ñaaw lu nekk teg na ko ci deru nit yi ah. fen bu dul fenu nit fenal na ko te musu leen fi dëgg mu tegal leen fi benn preuve génneel la fi ay liste nit naan góor jigéen yi mooy liste tegu leen fa benn góor jigéen waaw Tange mii muy attaqué fan yi ah naa ko laal nga laalaakee Tange dina génn dina la tegal hmm? te dañ deugal lam teg tange buy wax ay preuve lay teg ce différence yow tonkara waaw lu mu wax budul li ko bar wax mu nan bar nee dossier de moy bar mi waaw ñom ñaar mom mito man bi <laughs> xawma kan mo ci ëpp sa morom doole quoi parce que ké door na bay affaire mu ne ko non gaay yi du ma ko nangu nga may dominant il faut ma doli ci bagage quoi motax mu andi ci affaire soupe bek meew mi bar waxul soupe ak meew 300 mille la wax Ousmane Tounkara ñëw na 300 teg ca doomu Macky Sall baar doo ngeen dégg mu wax doomu Macky Sall voilà teg na ay bagaasam soob na ay sóobam mais j'aimerais que justice wala ñu nga xam waxal nañ leen loolu ah ñu jël baar mi jël Ousmane Tounkara ñu teg leen gannaaw Tounkara tàppet la bu nekk ca fële ca Amérique toog ca otombe te feek année yi du ngeen ko gis Sénégal mu fay teg tànkam mais baar mii ma nga Sénégal na ngeen ko jël yóbbu ko ci tribunal ba mu explique trois cent millions mu demee gannaaw xam na lépp ah, na ñëw mu teg mu comme ça ñu mu tey complot bi Sénégal yi mun ci bénéficier quoi voilà ñu dem yóbbu Ousmane Sonko gannaaw amul jom moom pour dem setal deram devant tous les Sénégalais lu dul làqatu ci ay tunkarak ay baar mii xaw ma lan baara dal xaw ma baara lan ah. ñoom lay làqu seen gannaaw ñu koy défendre ah. mais vraiment mi ngi wàccee boppam quoi ci ko xam dafa am aspiration nek le chef de l'État waaw dégg naa barki demb ñu naan bon juge yi kenn nangul remplacer Samba Sall ndax ko ko remplacer de mais sénégalais yi di ko wax di ko wax juge yi di ko wax képp kuy sénégalais mais ana yàlla fu ñu ko bàyyi xanaa da ngeen a fàtte suñu borom da ngeen a fàtte ne yàlla mooy sàkk yàlla mooy juddal yàlla mooy rey Ousmane Sonko ak ay bois sacré ak tout ce qui se passe derrière lol war na mën taxaw ñu naan juge ben nangu la jël dossier bi ndax bois sacré ba Ousmane Sonko bok ak ba mu ci dugal ñoo fu génné ta Sall mi docteur Sall génn aduna waxon nañ leen bo xamné bobu ay affaireu Adji Sar amut yalla war ko jël gis nga bois sacré ba ñako ko dañ koy fekk Usman Sonko bis bu bisam joté yalla na yeex ci mom diko ñaanal da koy fekk donc gëm leen yalla bayyi affaire mystique yi bo gisé ñu né mystique mo tax kenn nangu la jël dossier bi koku moy wedd ngeen suñ borom wedd ngeen yalla gëmu leen né yalla moy juddal yalla moy rey voilà lolou na ngeen ko def seen bop diko ñaan juger diko ñaan Ousmane Sonko na prétendre pour leral setal daram parce que yi muy nëbbutoo golo yi ñew di fenal bis bu ne affaire yi di amplifier wu amna vidéo bu wara a génn amna am image yo xam kenn mënu ko tag ñukoy gis mais amna ñu ne tag nañ seen bëtt Ousmane Sonko na génn limay dégg mbam mi ak sikkimam bu rëy bi na aji sar ma sœur ak yu kan daram fenal ko sosal ko naan na nga génn jéggul Sénégal yi damal ne Ousmane Sonko na génn ntaayam mu jéggulu Sénégal yi moom dëng-dëng boobu salon bobu mo fa dugg ak ay katcha ba ci fenam voilà moom moo war a génn setal daram moo war a jégglu sénégalais yi Adji Sarr amul lu muy jégglu sénégalais yi waaw yow Ousmane Tunkara yaa war a jégglu Adji Sarr jégglu sénégalais yi yi nga kàcc yi nga sosal yi nga fenal ba pare naan maa ngi baalu àq ñëpp kenn baalu la ndeyam benn àq doomu jàmbur yi nga yàq seen der wili pande du matin au soir nga teg ko fan dafa nga ne pare émission bi naan maa ngi jégglu ñëpp yow yaa naa feq boo doon gor keroog lañu la wax ci màggalu suñ tubaagee di nga soppeeku waaye yow yàqu nga ba noppi ken mënul ci yow dara waaw sénégal nak dégg naa ko mu naan man état bi ñu ngi yabal pour négocier ak man yow wax na ma sénégalais yi may xool Ousmane Tunkar lan la mën a jariñ ndayam sénégal lan la ko état sénégal di doyebu bay négocier ak moom ci lan ci lan nit ki da ngay def loo xam jar nañu négocier ak yow lan la def et qu'est-ce qu'il représente pour le sénégal saaga Macky Sall bu doon loolu la négocier saaga nga ko bu pare xanaa ka ñuy négocier dag da war a décider pour saaga ñu ne nañu négocier bul saaga waaye yow def nga lépp faale wuñ sa maam ngaayam yëguñu la nga naan dañ la jiñ terroriste faale wuñ la demal ci immigration ba nga amal problème këyit yooyu nga lijjanti ko état Sénégal yaa leen porte plainte perte nga yow li nga xam ne si mooy procès boobu dinaa ñëw tegal leen ko fi ci wér yu leer nañ xaa xam nga ay bagaasam day leer Ousmane Tounkara moo porte plainte état Sénégal leen la ay 22 millions de dollars dafa perte procès boobu le ministre de l' intérieur actuel bii John moo représenté woon Sénégal ci procès boobu Ousmane Tunkara perte na ko ñëw naan ñu may yabal fee na ngeen wax man sénégalais yi moom sénégalais dañoo soxla sa maam yow looy jariñ sénégalais yi yow bi nga boo xam yaa sa Sonko moom yéen a yem lan lañ lay doyee nga booy ñëw nga naan sénégalais yi ngeen di négocier ban sénégalais golo yooyu ñëw dajal di defal pétition yow milliardaire bi boo amoon milliards yi nga am daañu ñëw fi di la dajaleel looy fayee benn avocat. yaa ñàkk jom demal nga jaay sa nokkas boobu ngay jaay ak yàgg soxna moo gën ci yow bu rey nit ñi léegi nag déglu leen baar ma monté leen ci vidéo bi ngeen déglu ko après nag am na kilifa diine goo xam ne si dana am wax bu am solo bu muy wax ma bëgg di ko may baar di ko may Ousmane Tounkara di ko may Ousmane Sonko di ko may ki nga xam ne si mooy Ousmane baax man yo yooyu ah leen ko tagal ak kat yu mel ne yéen da ngeen dégg kilifa dina dina bu ma leen ah, da baax ah lu soxee ko ci da baax da ngeen dégg lam leen wax nan la jullit war a mel surtout seen baar moomu xawma ma baara la xawma lan la na ko dégg bu dee Ousmane Sonko jaral na la hmm, parce xamoon ngeen kum kunkande amoon na fay temps télévision yëkkati ko bës bi ngand gis kum kunkande luñ mujj ay xeer lañ ko doon sànni baara njaay mi dana mujj ñu koy sànnee xeer moom ousmane sonko ñii ay picc lañ yuy naaw maa ngi koy wax di perte ay donc benn par benn putt ñu mujj ñoom ñëpp ci biir pax mi xool leen baar monsieur baar mi leen sonk mi leen tunkara doon wax ah ngeen déglu original bi déglu leen ma lii ndax sëriñ war na toog di ko wax di ko wax ci tuuba mbàkke gee ci bisu màggalu sëriñ tuuba bu tedd mi te naan ab sëriñ la ñu toog ay taalibe di ko wër yéen ñàkk fulla te ñàkk fayda ba ci fan yi inshallah allah ngay tebel du bo ci bi loolu na ko def yar ak ay tegg fi ken du fi saga xam mo man clash na len ñom ñi mais du len degg mo wax len du ñaaw saga len dama len tegal ay fe tegal len ay fen ay katch yo xam def nañ ko ah muy ay preuve kum doy bax na kum naxari dama nga jaamu ji bara nga jaamu ji tunkara sa problème la sama yoon newu ci mais ñi konté wuñ dara ci Sénégal donc bu ñew fi nan Ousmane Sonko mi ñepp bëgg yow ya bëgg Ousmane Sonko ak golo yu melna yow voilà Ousmane Sonko wul tous Sénégal na dem mu sétal dara mo gën waye ñew di laqati ji golo yu mel yeen mom dafa naa ne kooku wane na moom moo nekk ci tor déjà bu néwon ci dëgg woné na bopam bu yagg peace and love ba ci fani inshallah ciao Deng, lolu mo andi mbirum aji sar ñew taxaw aji sar it bi mu taxawee li li ci xam mom duma ko wax ci aduna man hmm. ah xanaa Macky folli ko damay bañ ma <laughs> yàq ah, déedéet déedéet déedéet bi <laughs> waaw. lépp. Ah. doo ko togg. Mm-hmm. complot la. ay. Adji bi mu ñëwee ci salon de massage bi. Mm-hmm. Ndeye Khady njaay dañ na dafa ñëw Adji Sarr am fay fan Ndeye Khady feebar def am doom ju prématuré. dem ca mm-hmm. hôpital ba. loolu du lool lool lu yàlla dogal ñii rek de mhm. ñoom ñoo indi aji saar fexe ba day xadi génn génn salon bi mhm. parce que bu fa sonko ñëwoon fekk fa responsable salon bi mhm. la fa am du am dafa am ñoo dugal aji saar ba noppi jële fa nday xadi bi fa nday xadi jógee demal nga laaj nday xadi ñaata massage la fa bàyyi mais comme sonko moom warul aji saar warul kumba warul binet warul keneen moom day maase wu bu ñëwee mën naa am masseurs yi. Hmm. ki bëgg mu maase ko pour mu comploter moom du ko maase. ñu fay leen ku ne trois cent mille. ay pour débourser leen. loolu révélation la de. dëgg laa la wax Ndeye Khady Ndiaye du ko weddi ñëpp kenn du ko weddi dañoo doon fay booy yi man ki leen doon fay xam naa ko. ah cheikh bi cheikh bi li nga wax nii. la Ndeye Khady Ndiaye laaj ko bi ngay dem bi ngay feebar di dem ci hôpital ba. waaw ñaata massage nga fi bàyyi ak bi Sonko ñoo ñaata la fekk dañoo ne ñëpp bàyyi leen. dañ leen dañ leen a fay pour ñu abandonné débauché leen. 300000 a ngi nii fii police da fi bëgg ñëw. bu fi ñëwaat. fi ñëwee la def fekk da leen di jàpp dama lay dimbali jëlal lii nga dem seen dëkk nga jël yoon xam nga ne kuy wër journée 10000 ak 5000. ah waaw waaw ñu fexe ba rocc massage kat yëpp. ah lii révélation la ci beneen parti ci complot bi. bàyyi fa benn massage pour bu Sonko ñëwee mënta moy. Mhm. mënta moy. Mhm. boole kok bis bu nek di ñuut ñuuti ndax ñewagut mi ngi ñew ndax hmm. ñewagut ñom ñi gaare seeni auto di xaar ba xam dana ñëw ak du ñew xolal lañ fa daj ci ay jour hmm. man gis nga daara isbu tarxiya daaru xudus bi ngay gis hmm. ma ngi ñoma dekk ñi ngi seen kër ngi seen jang yi moom laa doon laaj ndax da dérange seen chef ba nek kër euh, dakar mok suwet bu te ñoo takalo ñoo takalo man ñenn ci ñoom am na luñ luñ xam ci lu bari ci mbir moomu dañ faa toog a toog ba maxe ba ne waaju ñëw bis nga bis bañ ñëwut. Mhm. ci la Sonko ñëw. ñeneen ñu doon toog di xaar. da leen a rëcc. ñoo yëpp ba ne léegi moom guddi gu jot comme Sonko moom heure yi guddi gu jot nañ fi monté di ko nekk. jour bi ñu monté wut. bis bi ñu ñëwut. jour boobu la ñëw ci la Sonko maasé mbirum yàlla. mbirum yàlla. Mhm. billaahi wallaahi dañ faa taxaw ba maxe. Mm-hmm. taxaw. Mm-hmm. gaare 4-4 monte fee dof monte fee kee monte fee mm-hmm. laaj ko tey xadi ñi nekk fa ay weer. mujj ñuy jël aji saar ci boppam di ko yóbbu ci cabinet avocat ñu koy conseiller. en attendant bu ñëwee. naka la ko mën a aborder ba am ci moom rek dara. préparer ko. moom am na ci ku doon wax naan dama ko woowoon sama bureau pour waaw amoon na amoon na amoon na koy violé buñ koy doon mm. violé lan na mm. ko wax ne ko fii 15 jours dañ koy violé mm. ah? dañ ko doon préparé pour ñu xam xam nga mën ngaa ñëw maase nit giñ ko viol te doo am donc élément matériel yeeg preuve yi voilà mm-hmm. fexeel am karawam xëy na fexeel ngeen seen ñaq yi laalante pour sax ñu mën a xam ne ñëw na wala dara loolu lañ doon def Mm. jàngal ko ba mu ne xar ñu teg ko fa. gëm taxaw ci buntu bi di ko nekk. pour mm-hmm. bu duggee xëy na foto ko xëy na nangam xëy na. Mm-hmm. bis bañ ñëwut laa la wax. jour boobu la fa Sonko ñëw. mbiru yàlla mbirum suñ borom. Mm-hmm. ba Sonko ñëwee ba dem. ñu préparé seenu docteur ba yàqu. ñu mujj obligé dem ci beneen docteur boo xam ne. amaana. yoruñu ko woon ci seen poche mu yàq ci procès ba. mais gëm gëm nga ni. procès dina am ci mbiru Adji Sarr. dama ne la mm-hmm. ba yàlla defee loolu. Mm-hmm. dama lay wax mbirum suñu borom. bu la yàlla yebalee. Mm-hmm. gis nga ba ne xoo ñi daal di ne Sonko dafa violé journal yi bindu. askan wi ñi gëm cinquante bàyyi cinquante. di gis nga Ndeye Khady Ndiaye. bu génnoon daan ne ah ay la yéwén de moom aji xamaluma ko lu bon bu waxee rek de moom dëgg la. Mhm. Hmm? Mhm. pourtant bu waxoon loolu duñ tëj salon bi. mais yàlla may ko muy ko honnête. Mhm. gis nga Ndeye Khady Ndiaye bi mu honnêté jëkkëram ko ne eh bu ma andil problème ah. ay dugal. waxal li yi bëgg ñu wax tax bu ma fonto mais jëkkëram ka nga xam ne moom ajee ko fa andi woon. mooy deuxième massage nga xam ne moom moo ko fa andi woon pour mu wéttali ko nii rek amataan naa kooka itam aji ne ko waxal ma lii mu honnête mbokkum séeréeram ma yaa ngi koy fàttali waaw honnête nga ma ñu dem ca capitaine Touré di plainte capitaine Touré honnête sëñ bi op moo gën a jafe gaynde senegal lu tax yàlla dajale ko ci dossier Sonko ci dossier Sonko ñëpp waaw état bu ñu toll rek am am kii wallaahu xayru maaki ba ci avocat bi jot SMS ba avocat ba jot SMS ba lis bi ñu dugg assemblée ay miiru ñi nga dafa dafa malaise. Mhm. ñu dem ca si sec si sec ya bàyyam gaañu. Mhm. Samba Sall jël ko gis na la ci yàlla dogal yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. amiin dégg nga léegi nag gis nga loolu ci am. maanaam loolu daf lay wax ne. Sonko li muy woote du ay bi billahi gis nga Sénégal barki démb laa ak Ibrahima mii ma ne ko na nga ma baal ci li ma koy message. dañoo dañoo bañ mbaam. ragal muus ñebe waaw boo mbaamee hmm. nekku al toppe hmm. politicien bu jóg ngay mari taatam hmm. kenn du la bëgg ci waa kuñ koñ sax duñ nag nga nekk maire ba dégg boo muusee ba mel ne ndaamal kajoor sénégalais naan moytu ko daa muus bu ëppale dégg nga li tane sax moom aw xajeel sax di sàcc di leen may sax moo leen tane ñoom da mën nañoo négocier xaj mhm. waaye muus ak mbaam moom mënuñ ci moom dara yii ma la wax nag maanaam Ousmane sonkoo doo déglu discours am mukk ba yëg ni kii di wax yow ak yeewute lay jaay wax dafa am ñeenti tànk yow miy wax yal na fekk yaa war a wax la ngay wax it yal na fekk muy la nga war a wax fa nga koy waxee yal nay palaasam ña nga koy waxal yal na ñuy borom wax ja lu ci manqué noppi te jullit jullit dana jikkoo jikko bu nekk moom des fen illa al kadiba jullit du fen jullit du war moo tax yàlla ñu yàlla jàppale Découvrez le bouquet africain.tv, la première application 100% légale de chaînes et de contenu africain. Accédez à 5 chaînes sénégalaises et à 5 chaînes de divertissement. TFM, RTS, Soulieuf, A+, Nollywood TV, Trace Africa et beaucoup d'autres. Tous les hommes sont pareils. Tu voulais détourner de l'argent là dans mon salon Retrouvez également plus d'Afrique et ses centaines de programmes à voir et à revoir en illimité sur tous vos écrans. Divertissement, films, séries, jeunesse. Testez-nous avec le bouquet africain.tv. Mettez l'Afrique sur tous vos écrans.